le pouvoir est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'opposition xam nga moom moo tànnoon dem ànd ji ak le présent Macky moom moo toogaat ba mu nekkoo génnaat ci lépp euh, ci ànd gi mu àndoon ak président Macky Sall waaye man li may wax rek mooy kooku dañ ko war a ñaanal. Mhm. waaw dañ ko war a ñaanal soxla na ay ñaan. comment ça suñu lijaay jooju il faut que ñu ñaanal ko pour xelam mën a dellu si waat parce que am na ci yenn yoo xam ni ku ànd ak sa xel. doo ko def te bu fekkee dara daf la obsédé doo gis lu dul lool day dem ba da jural ci ay erreur yoo xam ni day permettre nga dem ba dootoo ànd ak sa xel tàggalikook sa xel di wax yenn wax yi def yenn attaques yi. Mhm. donc daal loolu daal lañ koy ñaanal. mu dellu si waat ak xelam. avant wax yeeg attaques yi parce que dinañ ci ñëw c'est important mhm. euh, yenn erreur yi ngay wax euh, déjà l'erreur quand est-ce que ça a commencé selon vous bi mu quitté opposition en 2020 rejoindre Macky Sall te kenn yëgul wala le fait que ko tey jii ni ñëwaat pour bëgg a nekk président de la République. xam nga boo jàppee ni yow yaa gën a muus képp kuy dox ci kaw suuf. yaakaar na luy dox lu ne nit ñëpp mun nga leen nax. da mhm. ngay dem ba ci nax yooyu ngay nax nit ñi nga naxaale sa bopp. te loolu moo ko dal. Mm-hmm. te yàgg na ci loolu. moo tax nag dem nag ba affaire yi nag fi mu tool nii day dem ba dalay jural yenn yoo xam ne doo mën a comprendre ndax ku ànd ak sa xel nekk ànd ak sa sago am na yenn jëriñ yoo xam ne ak yenn carte yoo xam ne doo ko yëkkati. ah mais ku toll ne Idrissa Seck doole gi mu àndal ñëw opposition ça devait être une bonne nouvelle pour vous parce que dafa dafa leen di renforcer wala vous ne voulez de lui. gis nga am na ci loo xam ne boo xoolee bi moom bi mu génnee di wax le président Abdoulaye Wade. Mm-hmm. la des Sénégalais. ñëpp ko xam ne bokkuñu PDS. kenn rafetlu duñu ay politique dal ci kawam. parce que dafa nekk le président Abdoulaye dafa nekk nit boo xam ne ak koo mënti doon ak noo mënti mel boo ko tuddee rek sénégalais yi dal sa kaw parce que dafa nekk ci seen xol. Mhm. donc boo gisee réaction boobu noonu. ak euh, waxi na meg ak doxalin ak ni ko sénégalais yi soofantalee ak ni ko sénégalais yi bàyyiwee xel nga xam ni waa yi nii moom euh, kii la rek tonneau bu vide la rek. tonneau bu